gannaaw ay fan bi Sidi Lamine Niass làqoo laaj gi nekk ci bépp gémmiñ jamono yi ñu toll mooy kenn moo ko nax wutu ci bopp Walfadjri ak ba xam ndax am na ku am mën-mën xalaat gis-gis ak fit gi Sidi Lamine amoon ba mën a taxawu Sénégal ci fànn wu nekk Jean Meissa Diop journaliste indi na ci ay leeral. Sidi euh, succédé ko def li mu daan def. je crois que dina dina métti bon parce qu'il faudrait que ñu wut ku niroog moom style ku niroog moom gëm-gëm ku niroog moom ay je ne sais pas courage ñeme ñeme ci li muy wax ak li muy def alors je crois que gis ku mel noonu euh, xanaa di nga wër de di nga wër lu bëri pour euh, gis ko c'est-à-dire que xam environnement presse euh, am say engagement xam ci li ngay engagé wu et puis bon ñeme ci engagement boobu alors parce que yooyu yooyu mooy ñetti critères alors ku mën a satisfaire critères yooyu bon parce que Walfadjri mënul jékki-jékki rek nekk euh, euh, daanu completement nekk euh, je ne sais pas moi ay style accommodant yooyu di di jéem a xalaate wala mu jéem a faral nguur et cetera nit ñi xamewuñu ko loolu bëggewuñu ko loolu Walfadjri euh, c' était vraiment Sidi Lamine Niass moo woon Walfadjri quoi Walfadjri moo woon Sidi Lamine Niass alors il faudrait bon peut être que Walfadjri continuer mën a continuer lii la xamoon na euh, ñi nekk Walfadjri euh, nekkoon ak Sidi ànd ak moom xam nañ ne Sidi nu mu daan doxalee ak lan moo woon philosophie ak xalaatam cest à mën nañ continuer noonu. mais xaw ma nag ndax est-ce que am dinañ am courage bi wala ak euh, conviction yi bon parce que ku nekk ak ku nekk ak li sa xalaat ak sa gëm-gëm.